asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bu ñu nuyoo ziyaara sëriñ tubaa sëriñ muntaqa mbakke xalifa général kullu murit ñaanal ko fan wu gudd lool wu ànd ak wér-gu-yaram ziyaar sëriñ abo baraka mbakke moom cheikh mohamadal fadal ak mboolem njabootuk sëriñ falilu mbakke gépp waaye ziyaar mboolem njabootuk sëriñ tubaa gépp ak mboolem jullit yi am nañu mbégte teew fii ci ndindik Serigne Falilu Mbakke ngeen jàkkaarloo nag ak sang bu sell bii di sëriñ Abdul Karim Mbakke makaarimul axlaaq mu Cheikh Mouhamad al Fadal xam ngeen ni fan yi ñu weesu li ko dale gaawu yemoo ak fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin deux mille vingt et dégg ngeen liggéey bu am solo bi nga xamee ni. moom la ko magam ju sell ji Serigne Cheikh Ahmadou Mbakke moom Serigne Touba Cheikh bu Mbakke joxan ca Touba boole belel mu nekkan liggéey bu yéeme lool nag Serigne bi yëkkati woon kàddoom ginnaaw bu mu jotee ñaan ak ndigalul ay kilifaam woowan taalibe yi ak soppe yi ak wëllëre yi ak amdu di jàmm yi ñoom ñëpp nag li jamonoy xat-xat ñu bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp ñëw ànd ak Serigne Abdou Karim liggéey bi ba ca altine ja fekk na liggéey bi mat. waaye ku xam sëñ Abdou Karim Mbacké ci liggéeyal sëñ Touba ku xam sëñ Abdou Karim Mbacké ci nangu ndigal ku ko xamatem ci ni mu fonkee lu bàyyi ko ci ay kilifaam tax mu fanaan loo fa njaboot ga ba sa talaata ja ñu wër tool yëpp ba gis ni jortu nañu ni ni ko sëriñ bi bëggee woon amee na ko noonu booba nag la sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké moom sëriñ Touba Cheikh bu Mbacké ñëw ànd ak rakkam sëriñ Abdou Samad Mbacké ñëw fekk fa mboolem njaboot gépp ci teewaayu sëriñ Abdoul Karim ñuy yëkkati fa kàddu yu am solo muy kàddu yu cant ak ngërëm ak naw sëriñ Abdoul Karim Mbacké ci liggéey bi ak pëstef bi nga xamee ci moom la ci duggee ba liggéey bi mat sëriñ bi amee ko na ko bëggee sëriñ beeteem nag ginnaaw bi mu ñibbisee la fas yëkkati kàddoom nag muy kàddu yu cant ak ngërëm jëmale ko ci mbooleem koo xamee ni si dugal nga sax loxo sa liggéey ba moo xam nga teewan moo xaman nga am yéene teew te teewoo kon ñun ñëpp ñu maasee teewlu déglu sëriñ Abdou Karim Mbacké makaarimul axlaaq moom Cheikh Mouhamadul Fadal. asalaamaaleykum noo ngi nuyoo tey siyaar bu baax a baax baax a baax ci li nga xam ne moo weesu muy liggéey bi nga xam ne moom la ñu sëñ Cheikh Say santoon ah ngi sant mbooloo mi fa ñëwoon de waaye mbooloo mi nag ak ñun ñëpp. li ñu gën a def mooy sant sëñ Cheikh Say ndax ku xam liggéeyal sëñ Tuubaa li nga cay jële ku la teg ci yoon woo mën a amee liggéey ba yaa ko war a sant nun liggéey bi noo ci sant sëñ Cheikh Say bu baax a baax a baax a baax te di ko ñaanal mu yàgg fi moo tax sëñ Muntaxa bis bu nekk fu nu mën a toll muy guddi muy bëccëg nu ngi koy sant bu baax te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér liggéey bi nag man dama daan bëgg a teel a xëy waaye sëñ yàlla yi mi nga xam ne moo ko doon jiite lu ma teel teel a xëy rek bu ma nee fekk fa moom fa nekkoon di ko jiite nekkaaleel fa njabooti sëñ Fall yëpp. fekk tax bi may wax fële dafa fekk bi sëñ bi agsee dama jaxasoo ba li ma waroon wax li ci bari waxuma ko waaye Seex Muhammadul Mursala mu Sëriñ Fàllu ñëw na fa bi mu fa ñëwee li mu mooy liggéey bi foog mu ñëw teg fi tànkam ñaanal mbooloo mi ndax liggéey bi xàmmewu ko ak liggéey ba ko sëñ Abo di sant mu di ko jiite ci màddina booba loolu la sëñ Mut laa wax dégg ko eh, liggéeyal sëñ Tuubaa nag dafa am solo mooy li sëñ Fallu daan wax rek dégg naa nit ñi mës nañ koy nuyu bay nuyoo bu bari lool yëngu bu bari lool ba ñuy dal ci piliyaan bi nga xam ne ci la toog sëñ bi ne daf leen ndànk mu wax ak yéen waay ñépp dal mu ne leen am dencal ma ci rekk kenn du ma ci gaañ ci lii ngeen di joxe dencal ma rek la ndax bis dana ñëw ñu ful ko delloo leen ko mooy waxi sëñ Abdou Lahad ji rek sëñ Abdou Lahad nee na dafa foo xam ne danañ fa dem te munta ñàkk te nanguwul yàkk bay dem bokk yóbbaale nanguwul dem ba noppi ne la ma fa bàyyi nañ ma ko yët waaye nangu na nañ ma yóbbu lii bu ma ñëwee fekk fa sëñ Abdoulaye ne kon nag nañ ci gaawtu ndax xamuñ kañ la dem loolu mooy lan mooy lu baax li ngeen def rekk ngeen gaawtu ci bu baax te yokk ko xam ni yéen ko moom ñu moytu nag di fa yónnee loo xam ne buñ ko fi fekkee ñu ne yaa ko moom mu naqari la dañ ko moytu moo tax daal liggéeyub sëñ Muntaxa bi daal sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Cheikh say sëñ sëñ Cheikh say mi daal ñoo ngi ko ci sant bu baax maa ngi koy waxaat di ko ñaan mu yàgg fi si wér li ma waxoon ni bu wér mooy sëñ Muntaxa mi nga xam ne daf nuy liggéey la saa bu ne ci sëriñ Touba noo ngi koy sant guddi ak bëccëg fu nu mën a toll mu yàgg fi lool te wér laa ne woon rek ma dolli ko ci ci cant gi sëñ baa ngi nuy sant sax ñun ñu fa teewoon ñëpp waaye nun noo ko gën a sant ndax lim nu may dafa rëy nu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax a baax a baax li ma wax ne nag bi sëñ bi ñëwee dama tàngu ba li ma waroon wax am ci lu ma fàtte tàngoor wa bi bi ñëwee sax damaa fàtte sumbi sama baax na ba dañ ma ko fàttali ma tiit ci laa ko door summi loolu li ak jaxasoo la rek aku tàngoor noo ngi koy sant di ko gërëm ndax sëñ bi li ma gën a neex ci lim sant ndax santaane man nga ne bu àggee bi sàngam de dana baax buñ sañoon it dana àgg bi sàngam waaye loolu lépp maslaa la waaye ndigal nag mooy li mu def nañ dajale matt ma lépp buñ ko goree ba noppi nañ ko dajale lépp ci daara ja te na na liggéey ba noppi bu mu weesu altine <laughs> loolu loolu ndigal <laughs> waaw te ma ndigal yi ñu ngi ko jot alxames ma dem fa aju ma seeti ko ñu tàmbali ko samedi gaaw gaaw dibéer altine mu jeex na mu ko waxee woon rek du bu na na bu mu weesu altine ji di ñëw loolu mooy ndigal loolu man lim nu sant lim wax lépp lool ci loolu laa ci gën a bég waaw moo tax sant gi ñu mën a sant sëriñ bi daal amul fu mu yem taalibe yi itam doyaluñu ba tax na ñu bari ñëwoon nañ am ñu bari ñoo xam ne yéene woon nañoo ñëw waaye dafa dafa am lu leen téye boobu nu ñoo ñëw waaye seen yéene ñëw na ñoom ñi seen yéene ñëw ak ña fa newoon ñëpp nag ñoo yem ci liggéey bi dégg naa sëñ Fallou mos nañ ko ne waaw muy sant mbooloo mi ñu ne ko waaw ñi ñëw ñi ñëw tey nag mu ne ñi ñi fi ñu fi newoon booba léegi ak ñi ñëw tey ñoo ñoo ñoo ci yem ab añ bu ko fekkee ca nga sëñ Fallou dafa doy waar léegi naa am na ci taalibe yi ku ma si ñëw ne ko di ko laaj ne ko sëñ bi daal noonu danoo gis dañuy nekk ci daara ji am fa ay at am ku ñëw toog fa tuuti nga yebbi ko nun daal te noo bokk lu luy liggéey loolu daal xamuñu wax dëgg yàlla noonu xamu xamuñu lu mu doon sëñ bi na leen loolu danaa leen ko misaal ci butéel butéel am na yoo xam ne day dañuy taq nga war leen raxas war leen duy saañ leen bokkut ak butéel bi nga xam ne dafa set ba noppi ñu duy ko saañ rek a ci des nee na nit ñi noonu lañ mel dafa am ñoo xam ne bu ñu ñëw dañuy set wicc fees del saañ leen rek ci des am ñoo xam ne bu ñuy ñëw nag dañuy tilim nga war leen raxas war leen a duy war leen a saa ñooñu duñ bokk ab diir mm-hmm. duñ bokk jotaay duñ bokk bokk waxtu suñ fàll lu nekk daf ko daan daf ko daan leeral leeral lin bu bu ñëpp mën a dégg kon daal taalibe yi na xam ne man maa leen di sant ci teew gi nga xam ne teew nañ ko waaye nun ñëpp man ak ñoom ñëpp nu ngi maase di sant sëñ Cheikh Say rek dellu di ko sant rek ni ma ko waxoon rek moom daal moom la ñuy sant rek moom mi nu sant liggéey bi daal ten xam lan cay jëlee liggéeyal sëñ Tuubaa li ci yàlla yi defal noonu ñu ko xam daal noo koy noo ko dañ koy sant rek sama ñu ngi koy sant bu baax gis nañ pasteefam ci yëf yi bi mu ñëwee gis nañ liggéey bu mbégte bi mu ci am te lépp xeet ci sëñ Cheikh rek a tax gis na na na ko sante ak nañ ko doxale mu neex ko lool ba mu békkee ba moom it xam naa ne dama tàngoon waaye gënuma ko tàgg tàngoor yi sëñ bi tàng liggéey bu ko fa teewal tàng ñoom du sama kenn gënu ko woon tàng waaw sëñ Mourtala mi ma wax itam bi fa teewee ñaanal ñaanal ñaanal la ñëpp waaye moom it tàngooram rek la ñu ngi koy sant bu baax Mbàkke te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér ñuy bëgg lool nag ci ñi nga xam ne yàlla boole nañ ko ñoom ci ci njëkk ñuy ay bokk ñenn ñi di ay kilifaam ñenn ñi muy seen kilifa wax dëgg yàlla ñun ñi nga xam ne ñooy teew ci barab bii daal xol bu sedd moom fu muy yóbbu nit dana ñu fa yóbbu ndax li tax euh, teewaayam toogaayam ni ko kilifa yi yége daal ba luñ dugg ànd caag moom lii ñu di ko defloo xolam di ci sedd mbooloo mi xolam di ci seen xol di ci sedd ba ci liggéey bii ñu jóge nga xam ne sëriñ Amadou Mbakke mu sëriñ tuuba sëriñ Cheikh Souhaïbou bu moo ko ko jox ñu gën koo miin ci sëriñ Cheikh Say mu jox ko ko joxin wi mu ko ko jox nga xam ni joxin wi li ci neex mooy wane wane na ni kilifa guy def loo ka mu yilif loolu dafa neex lool te bi mu ñëwee mu taataan ko taataan boo xam ni lam ci wax ci ba mu toogee ñetti nit mooy li mu wax ci rajo bi nee na nee na bu mu weesu altine jii jëm moom ci gën a neex keroog bi mu wooyee loolu la loolu la ma wax ma maag soxna maam am bi rek ñoo toog fii loolu nag ndigal nag li muy li muy baax baax yow mi mu jëm si ci yow ni nga koy taataanee dana tax ndigal li gën a tee am solo ci ñu ngi koy àndal te ni mu ko taataanee mooy xol bu sedd gu ak xam ne lu mu war a def la bu wér a wér loolu nag dafa neex lool ndax dafa bokk ci li sàmm yoon wi dafa bokk ci koy defar ndax ndigal bu amut ci yoon yi bay boo rek ñu bàyyi fi tabax yi kenn ku ne nekk ci nga war a nekk te sëñ bi bis bu set mi ngi wone loolu mi ngi koy doxal mi ngi koy bëgg. jërëjëf kon mbokk yi kàddu yi cant yaa ngi noonu bàyyi ko ci sëriñ Abdul Karim Mbakke moom Cheikh Mouhamad al Fadal ginnaaw bu liggéey ba matee ca Touba xam ngeen ni liggéey bi nag tawféex ju rëy da ci am ndax sëriñ Abo Baraka moom Cheikh Mouhamad al Fadal moo ci jëkk ñaan. Eh, jëmale ko ci mboolem eh, julit yëpp rawatina taalibe yi nga xamee ni si teew nañu fa Serigne sox Ahmadou Mbacké moom Serigne bu ñëw moom itam bég ñaan sëñ Abdou Karim mii nga xamee ni si moo nekkan jëwriñu liggéey ba itam ñu jox ko ko mu bég ba ñaanal taalibe yëpp kon nag Serigne bi ma sant ñëpp rawatina nag taalibe yi nga xamee ni si ak soppe yi mooy seen jëwriñ ñoom ñëpp gis na seen taxawaay fu ne bàyyi ko nañu fa ñëw ànd ak moom liggéey bi Serigne bi nag nee na amul ku dul Serigne Fadilou Mbacké bàyyi na leen ak Serigne Fadilou Mbacké nee naa Euh, ma ngi yokk a ñaanal sëriñ Muntaxa fanu gudd loolu ànd ak wér gu waaye ma ngi yeesal ak taalibeem ci kanam sëriñ Abou Baraka Mbacké di ko ñaanal lépp lu mu bëgg a liggéeyal sëriñ Tuubaa mu liggéey ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu